waaw seetaan match bi match bi euh, on a bien vu quand même certes l'équipe en face euh, xam nga dañoo xawona a manqué qui touti technicité contrairement à euh, prochaine rencontre de jëm euh muy Algérie ñom nga xamné ils sont beaucoup plus doués quoi que l'équipe de la Tanzanie qu'on a récemment affronté la demee daal mais il y avait beaucoup beaucoup de points positifs là oui waaw jàpp naa ne bu amee benn comportement benn comportement bu ñu war a changer c' au niveau de l' attaque nga xam ne Sadio Mané mooy war a ñëwaat jëlaat place am entre euh, Diao Baldé Keita wala Ismaïla Sarr la ñuy xool foofu mooy point d' interrogation bi kan mooy cédé place am te man nag je plaide pour Diao Baldé Keita ndax jàpp naa ne moom moo ëpp efficacité quand même en plus euh, Diao Baldé Keita il joue direct il percute et tout. malgré même même si euh, Ismaïla Sarr pas mal aussi il n'est pas mal mais il faut qu'on change quelque chose te jàpp naa ne milieu terrain bi instant bii ni moom amul leen luñ ci war a à défaut de ça pour ñu indi fi benn impact tuuti ñu indi Alfred Ndiaye à la place de Pape Alioune Ndiaye ndax boo xoolee keroog si biiru ñu ay occasion presque ndax euh, déroulement match bi ak niveau équipe bi bokkuñu woon aussi côté défense bi moom Faut it point de dérogation mën soulever ndax euh, Pape Abdou Cissé c'est un défenseur central de métier hmm? en plus euh, il a compétit avec son club l'Olympiakos en plus joué na Europa League xam luy haut niveau bi quand même euh, man pour man jàpp naa ne di jël Cheikhou Kouyaté di jouer le poste boobu non. alors que ne kee le troisième défenseur central de métier bu effectif bi moom moo mériter place boobu quand même mais n'empêche Cheikhou il n'est pas mauvais aussi waaw D'accord, bon man Sadio Mané bu ñëwee dina mën a jouer euh, par exemple comme xam nga euh, Diao Baldé Keita dugal na Kérok. mais ça ne veut pas dire que ne toujours dafa war a dem partant parce que boo gisee moom moo jëloon joué place au Sadio Mané Kérok. donc Sadio Mané day ñëw jouer waat Ismaël Sarr nekk fii même man euh, Mbaye Diagne Mbaye Niang boo keroog def na ay erreur quoi dugalul mais nag loolu ça ne veut pas dire que ne dañ koy tegaat ci banc bi parce que loolu day yàq confiance du joueur nañ ko bàyyi mu dugg jouer waat en même temps su fekkee dem nañ nag ba ba deuxième mi-temps ñu teel a dugal Mbaye Diagne parce que moom tamit war na am lu mu war ne si équipe bi comprendre nga waaw parce que changement wu Aliou Cissé daal mooy man dafa xaw a yéex tuuti quoi booy def changement da ngay dugal joueur

xam la wax accès bi ma bàyyi fa Cheikh Kouyaté bon si kaw moom comme ni ma la wax rek Sadio mun Sadio mun na dem ak Ismaïla Sarr ak euh, ak Mbaye Niang. maa ngi jaaru baal li changement bi ñu war def daal mooy na fexe bii di ñëw moom jaaw bale moom na démarré rek Ismaïla Sarr toog bu deful loolu daal dinañu yàqal ñun Sénégal yëpp na fexe rek ba bu jaaw bale toog ban Ismaïla Sarr ni muy gaare bale fa bëri na toog ban benn cet daal mooy suñ cat benn cat la Sénégal mooy Aliou Cissé. Cheikh Kouyaté baax Koyate baax na damay dañuy bàyyi Sow Sow Koyate Sow Koyate li muy def na ko baax na mun na remplacer sa waay en tout cas na bàyyi man daal benn cat boobu rek laa bëgg muy na fexe ba jaaw bale ba mu toog nañu dimbale rek ba Ismaïla Sarr toog baax mais nag moom xam naa ne bu ñëwee leer na ma leer yàlla jaaw bale lay teg ci banc wax leen kooku bu ngeen amee ay mbokam yu ko yu ko jege dégg naa ne du déglu kenn moom xalaat du kenn doyu ko Sénégal équipe bi benn cat laa mooy Aliou cat boobu rek la am